mbokk Sénégal mbokk Kër Massar bii dafa am ay nit yu ñëw taal kër Déwle Ndiaye muy responsable Benno Bokk Yaakaar dëkk ci quartier Kawsara Kër Massar village ñu ngi koy massawu masawu njabootam masawu waa këram yépp ndax ci lakk-lakk yooyu góorom këram ak sëtam ñu nga cay tëdd hôpital mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu ndax élection jarul violence ñun ñëpp moo ñoo bokk dëkk Kër Massar kon lu ñaaw xajul suñu diggante élection yi dimanche rek mu jàll waaye dëkk bi ñu dëkk dañuy continuer di dëkk ensemble kon ñaawteef yooyu mënoon na ñàkk fii ci Kër Massar kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu ànd ak dal parce que violence du moom mooy tere citoyen bi tànn ki mu war a tànn violence bi war naa mën a ñàkk ndax ñun ñëpp ay mbokk lañu ñun ñoo bokk fii ci Kër Massar lépp lu ñu ñor rek mooy defar Kër Massar waaye nag kii nga xamante ne moom mooy citoyen bi Massarwa bi ak Massarwaas bi ñoom ñooy tànn ñooy xool ki nga xamante ne moo leen doy nañ leen nangul seen droit boobu donc maa ngi woo ñëpp ak dal ku xam Assome Aminata Diatta xam ni toujours lu ñuy woote mooy na ñëpp nekk ci jàmm ak salaam ndax jàmm rek ci la lépp xaj kon ñu ngi woowaat ñëpp ñu delloo si seen xel xam ni élection yi jaru ko yàlla noppi na démb du violence bi mooy tax yàlla changé li nga xamante ne loolu la am comme programme.